السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي لين نيو يو سوبي بي دي لي زيارة دي فاتلي سون بوب دي لي فاتلي هيتم نداخ يالا دي سازو ني مونو نني فاتلي نداخ دا فا ام لو ني في اندي وون موي ني جاموكو yenn saa yi doomu adama dana ko fàtte moo tax mu ne dil fàttali kon fu mu ne fàttali rek lañu fi indi la bëgg nga bàyyi ko xel mooy ñu jaamu ko waaye defal naa la ay jàngat ci jamono yoo xam ne doonte gudduñu aw lef bari wuñu itam ab tukki néew nañu xam-xam néew nañu ak sell la waaye boo dégloo ngir yàlla yàlla mën na laa jëriñ ndax innamal amalu bi niyaati mbokk ndax seetlu nga jamono ni muy doxe ci gaaw gim gaaw nga xam ne at day mel ni weer ci ni ko Yonent waxe woon te gis nga ni itam déegi gaaw na lool kenn waaju tut ndax sétlo nga nit ñi ni ñuy doxé ci seen intérêt bop kon war nga bay xel alaykum anfusukum ji ta waxon wala yalla nit ñi bu fekkee ni ñepp bop sa bop la kon yow tam bayil xel sa bop nak jotna lu ko moy da nga perte de ndax nit ñi ma gis ku ci nekk ci intérêt la nekk ku ci nekk ci bopam la nekk kon fexé la yobbu ci yalla jaamu yàlla goo xam ne bu la ko fayee sa xol sedd lu ko mooy mën nga perte ëllëg ndax bu fekkee ñaani nit ñi nga yaakaar seet ko rek ndax yow bu nit deexee danga ko ñaanal xam nga ne day bëri nañu istati ñoo xam ne ñaanaloo ci kenn aka baaxoon rek ca nga yem ndax xam nga ni itam boo génnee àddina noonu lañ lay def kon nag yeewul doomu aadama li mu gis bu fekkee mënu koo yee kon nit kuy wax mënu koo waar nit ñi ni ñu dëgmalee àddina dëgmal alal bañ fàtte diine te fàtte na ne lépp dañ koy doon ndax alal ji njaboot gee koy doon yow nit ki yàpp nga suuf see koy lekk sax yaa koy lekk sa yax yi suuf si lekk kon lan nga desee sa jëf war nga bay xel sa jëf rafet lu ko mooy danga nga jooy jooy yoo xam ne yu metti lay doon te fa nga koy jooyee mooy metti mooy yowmal qiyaam jaamul sa borom jot na déegi gaaw na fan yi gàtt na guddeeg bëccëg gis nga ni muy liggéeyee ci jaami yàlla yi guddeeg bëccëg rek bu la fi bay woon xam nga ne léegi nga magal te gis nga nii nit ñi gaaw a màggee noonu lañ gaawa a màggatee te foo ne gaaw a màgg gaaw a màggat buñ la waxee gaaw a dee war nga koo gëm bayil xel yi ma lay wax dil jàngal quran bi si nga dikk boo xam ne danga ko bëgg muta la dil bëri looy julli ci yonent dil bëril astaxfirullah bul añaanee kenn foo gis lu baax jàppal ne yaa ko moom foo gis lu bon bahil booy jàng alquran lépp lu bon lu wax jàppal ne yow lay wax lu baax jàppal ne keneen la boo gisee nit mu amab laago yërëm ko dil sarax itam ndax yowmal qiyaam sarax lu fa am importance la motax tax gaaya ya, dañu ni yalla so mu yóbbuwaatoon ci adina ma sarax kon nga xam amna amna solo sarax nak ay façon la wax wax ju bax sarax la gëna yaatu kon bayil xel sa borom bayil xel sa bop ndax adina ci su jeex tak la te nit ñepp ci seen bop lañ kon nekkal sa bop bul fatte sa bop bul fatte sa borom lu ko mooy sa borom bu la merexee amul kenn ku la mën a sauver yal na yàlla taxaw yal na yàlla taxaw